waaw boo gisee ma ñëw fi tey euh, dañu am benn programme boo xam ni ay partenaires yoo xam ne ñu koy wax waa ENDA ECOPOP ñuy liggéey ci wàllu fourné jàmbaar yàlla dogal ñoom dañoo ñëwoon fekk benn programme bu ñu amoon fële ci xel ko doon ci immigré suñuy bagage yoo xam ni di ko liggéeyoon ci un an àndoon ceeg président Abdoulaye Guèye en tant que njiitu defar gox bi euh, may au passage di jàllale waale nuyu di nuyu waa defar gox bi yëpp jël nuyoo di ko teg ci loxol président Abdoulaye Guèye ah bi ñu ñëwee seetaan ci programme boobu ci la yàlla dogal ñu gis ni ñu ñi euh, war nañ mën a liggéey ak ñoom ñu dal ñuy seet si ñu toog bokk comme ñoom waxtaan euh, ñu ni ñoom dañoo am dañuy liggéey ci wàllu fourne jàmbaar yi di dugg ci région yi ak département yi di ci am ay partenaires di ci liggéey ah bi ñuy waxtaanee ak ñoom it comme ñun yàlla dogal na bi ñu yi bëgguñoo def dara loo xam ni euh, wala ñu jël benn décision boo xam ni comme dañoo am kilifa gu mel ni Maguette Sène Euh, ñuy dox ci ay tànkam di roy ci moom it te lépp lu ñuy def it di bëgg mu koy rafetlu saa su nekk lu ñuy def rek comme ci moom la ñuy roy doon ay nitam bëgguñoo def dara loo xam ni euh, ku ko gis nii lii day waroo di màgget liggéey ñu kon ñun mënuñ benn décision wala ñu ci jël benn acompte lu dul dañu gis suñu maire ñoo it lañ ñu ci tegaloon sax dañ ko rafetlu kontaan ci loolu ni ñu it wax dëgg fa la dëkk bu ñu dem euh, maire ba mooy ànd ak regroupement bañ fa fekk wóolu leen di liggéey maire ba lañ ci boppam mooy ànd ak ñoom ci liggéey boobu kon loolu maanaam ñun li ñu doon wax ak ñoom lañ wax bi ñu dañu dëppoo ay kàddu bi yàlla dogee ñu joxante ñoom rendez-vous euh, fexe ba am audience yaakaar naa loolu ñu ngi dikkoon ci weeru koor yi ci la ñu gisante ak maire toog waxtaan ci yóbbu partenaires yi partenaires yi saafoonte ak maire waxtaan ci. Euh, jàppoon nañ ko ci jamono yooyu sax ci koor gi mais bi ñu demee ba xool ni comme programme bi bëgguñu mu doon programme bu ndaw dañu bëggoon mu yaatu ci waxuma la set xel comme c'est Maguette Sène mais ci département ba ci région bi euh, maanaam buñ ci jëlul ndam leen kenn duñ ci raw. ndax euh, Maguette Sène moom kuy ànd ak moom ci ndam rek ngay dox te comme mbir mi du lu tuuti ñu ni kon yàlla dogal na nañ waxtaan ak Maguette mu xool yaakaar naa ci la Maguette jàpp woon ne nañ bàyyi euh, bii di ñëw incha allahu ci la Maguette Sène jàppoon pour ñu def date bi euh, ñu ci kontaan lool nag di ci sant bu baax ci lool nga xam ne Maguette nangul nañ ko defal ñu ko ndax ñun amuñu ku dul Maguette Sène Maguette it amul ku dul ñun waaw kon ñu ngi yóbbu bis bi le incha allah le 20 mai ci la ñuy bëgg a ànd ak waa ENDA écopop bi pop bi pour ci wàllu fourne yi ndax gis nañ ni fourne jàmbor yi bu ñu ko commencé sax di ci waxtaan ak jigéen ñi intéressé na lool lool lool lool lool ko wax rek maanaam day ndeysaan da ci sawar ndax nee na la boo jëlee fourne bi maanaam par exemple boo ci defee këriñ benn kilo këriñ ñaari kilo da nga ciy mën a togg añ ak te bu dee gaz bi daanaka nee nañ dafay seer ba pare boole ñi Euh, mbir mi daal maire mel na ni jigéen ñi sawar nañ ci ñuy lay xaar ci bis bi nag di la ci xaar ndax amuñu yooyu pour leew comme ni ñu ko waxee bis bi sa bis bi daal sa euh, comme ni nga xam ne bëgguñu daal des ci ginnaaw comme ñoom ni ñu ko waxee mooy saa bu ñu demee maanaam ak fu ñu mën a dem rek seen maire leen di coiffé jiital leen ànd ca yow nag comme ñoom yaakaar nañ ni yaay meilleur maire ci ci ci ci ci ci ci région bi moom ak département moom kon moom yow yaay jël ndam li maire ñu lay woo bi bis ba le yaay ci kanam macha allah jërëjëf.